maa ngi leen di fay. di baale nga présenté wu. man la Abdou Aziz Ndiaye président du conseil de surveillance de l'office national des pupilles de la nation responsable politique APR ci Kaolack ci la commune de Dié mais suma teewaay fii tey teewaay de solidarité la à l'endroit de ma sœur et amie euh, Marianne. ñàkk Mariam ñàkk euh, ñi gis tey jii nii euh, élection yi fu ñu jëm nii euh, ñii di opposition tamit am nañ ci benn part boo xam ne bu am solo fii ci Dakar est-ce que yaakaar nañ kii di Abdoulaye Diouf Sarr tey mun na gagner lii di élection yi loolu kenn naa tablé wu ko Abdoulaye Diouf Sarr il est à la mesure de gagner plus que les élections locales Abdoulaye Diouf Sarr fu mu jaar wane na ko kut bu mu njëkk jaar wane na fa lu mu mën def na fa loo xam ne ba mu fa jógee la kudd commencé di leer donc Abdoulaye Diouf Sarr pour mu gagner Dakar man kooku ama ci benn werante il va gagner Dakar largement et il est euh, au-dessus de ses adversaires totalement au-dessus de ses adversaires waaw amul non combat la pour man non combat la Abdoulaye Diouf adversaire yi ma gis yëpp non combat la parce que ñoom ñëpp moo leen ëpp jaar-jaar moo leen ëpp expérience moo leen gën a xam état moo leen gën a xam gestion de la ville parce que la ville est à l'image de son maire et Abdoulaye Diouf Sarr c'est idéal pour Dakar. ñu gis ne tamit temps yi tamit moo xam ne moo nekk actualité euh, lii transporteur tamit grève yi ñu est que am benn impact boo xam ne ci élection yi ñun tàmm nañ di gis chaque élection di jub il faut que mu am ay mouvements sociaux loolu c'est normal parce que genre chantage la mais kooku ça n'a rien à voir ak les résultats des élections les résultats des élections pour Dakar c'est déjà acté Abdoulaye Diouf Sarr va gagner largement les résultats merci beaucoup parce qu'il est en mesure de les gagner et il va les gagner et j'en profite pour féliciter notre sœur Marianne par ce geste qu'elle est en train de faire de soutien à Abdoulaye Diouf Sarr que tout le monde doit se réunir autour d'Abdoulaye Diouf Sarr, cendre les reins pour que nous gagnions largement, la coalition Benno Bokk Yaakaar gagne largement au soir du 20, 23 janvier 2022. te loolu la ñuy ñaan te loolu dina am incha allah le au soir du janvier Abdoulaye Diouf a vivre Abdoulaye Diouf Sarr Dakar sera entre les mains de, du candidat de Benno Bokk Yaakaar entre les mains de Abdoulaye Diouf ADS.